Euh, jërë ngeen jëf mbokku internet 313 digital nuyu na leen bu baax a baax di am mbégte rek di ànd ak yéen ci lépp lu ñeel wàllum xibaar ba tey dañuy daal di dikkaat ci li nga xam ne nag moo di assemblée nationale bi amoon nag démb ak dissolution wu lii di HCCT euh, ak li nga xam ne moo di CESE euh, boobule projet de loi nu daal di koy rejeté waaye nag ca biir assemblée nationale ba dafa am lu fa daal di am ginnaaw ñi nga xam ni ñoo ñëwoon pour teewale boobule séance de plénière ki nga xam ne nag moo di Amadou Mame Diop joxe woon ndigal ñi teewoon Euh, boobu leen mbir daal di leen génne ci biir assemblée nationale loolu rek moo tax daal di euh, ñëw euh, seet si kii di Bayna Gueye mu daal di nuyu leeral lan rek moo tax nu génne leen ci biir assemblée nationale waaye laata loolu rek dama koy daal di nuyu bàyyi kaak mbokk internet 313 digital Bayna nuyu nan la di la jaajëfal lu baax a baax. maa ngi lay fay frère di la nuyu di la tamit nu mu tudd Massaw xaw ma déplacement bi quoi jógee sa fi ngay liggéey ñëw ba sama koñ pour interviewer ma affaire yooyu noonu ñu ngi Euh, di tamit wax sa téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu leen wax ne dinañ intervenir par rapport li jot a xew jox ci suñu xalaat pare tamit rétablir la vérité des faits quoi wax expliquer ko comme ni mu demee parce que des nga dégg ay ay ay yenn intervention yi yoo xam ne day day safaanoog li jot a xew quoi day safaanoog dëgg. Mm-hmm. jërëjëf Bayna di la jaajëfal lu baax a baax yow aussi ñu lay jaajëfal ci temps bi nga xam ni euh, accordé nga ko comme ni nga ko junjee léegi danoo bëgg nga leeralal nu lan moo xew biir assemblée nationale euh, ba nu génne leen foofu. waaw comme ni ngeen ko gisee démb ci image yi euh, démb séance plénière la woon xam ne président de la république Bassirou Diomaye Faye moom moo dugaloon projet de loi pour la dissolution de des des institutions qui sont HCCT euh, ak CSE. si euh, noonu la gars yi def benn texte woote un rassemblement pour ñëw dooleel député waaw député Pastef fii quoi amaguñu majorité ba léegi.

pour mën a euh, sax ali xanaal alalu askan bi yoon la mu dissoudre ko askan ñu ëpp ci askan bi ànd ci démb ñoo waroon voté projet de loi bi noonu ñu dem pour assister ko en tant que citoyen sénégalais mu doon suñu droit le plus absolu aussi am nañ droit dem fekkee séance plénière ba nañ ko di am benn tur boo xam si noonu lañ dem pour assister affaire bi ñu dem toog en toute responsabilité seran bi ñu nekk ci tournée bi nag benn instant dana euh, député wax na ba xaw a offensé président Ousmane Sonko benn euh, waaye bu fa nekkoon ci kii bi peut-être que gis ci boppam tontu ko mais waa ji moom moo def erreur boo xam ne dañ koy tapis ba dugg tamit bind leen ci ci buntu bi amoo droit intervenir amoo droit utiliser sa téléphone affaire yooyu noonu man j'ai respecté tous tous les consignes yi nga xam ne ñoom joxe nañ ko ci porte bi kenn ku defee bu defee erreur ba def nañ erreur évoqué nañ ko mais est-ce ñu dañu war a paye ci boobu. amuñu waruñu ci pen waruñu waruñu ci mën paye surtout que dañoo bàyyi suñuy tey yëpp ñëw pour teewlu loolu parce que dañu gëm ne euh, intérêt Sénégal moo taxaw. intérêt Sénégal taxawee dañuy bàyyi suñuy yite ndax Sénégal loolu la loolu moo ñu fa yóbbu dem président assemblée bi. li mu def abus de abus de pouvoir laa ko mën a tuddee parce que on a vu des choses plus graves foofu ay xew assemblée gis nañ fa Farba Ngom ñëw fa indi fa ay nitam ñu yor ay sabar yor ay ndënd di tëgg di yuuxu di sàkku leen neex. biir assemblée nationale biir assemblée nationale leen kii démb rek euh, Baara Doli mi ngi koy rappelé. te suñu leen mosuñu leen évacuer loolu moo gën a grave que public boo xam ne plus de cinquante personnes benn nit moo def moo def erreur nga bëgg évacuer ñëpp. te ñëw parce que lu ñu wax Ousmane Sonko loolu moo ko neexul moo tax mu réagir. mu réagir ñu évacuer ko. mais yow comme nga gis nga ne public bi c'est pas à ta faveur nga bëgg a utiliser doole bi nga xam ne dañ la ko jox mais euh, ñëpp xam nañ ne euh, euh, président assemblée nationale il est partisan. Hmm. il est partisan et c'est un pantin aussi man je le dis et je l'affirme c'est un pantin de Macky Sall parce que bu ñu nee kan mooy Amadou Mame Diouf ñu ne mooy mooy ki nga xam ne Mimi Touré dafa def camp dafa def campagne sillonner le Sénégal. pour après Macky Sall jël mi ngi tudd mi ngi cheminé moom depuis mën naa ne depuis depuis 2009 je sais pas 2000 bi muy teg bi muy teg Benno Bokk Yaakaar meeg def ko président euh, def ko premier ministre def ko ministre de la justice mu nekk ci position yu gën a kii nekk président institution tey nga dem amoo amoo ci moom kóolute pour def ko président assemblée nationale kon ki nga fay teg c'est un pantin day doon nit koo xam ne peut-être que c'est un bébé de toi moo tax Macky Sall la fa teg koo xam ne lu ko lu mu ko digal lay def lu mu ko tere lay bàyyi kon on peut dire que ne c'est Macky Sall toujours à l'Assemblée di fa di di def li mu yàgg def muy jaay doole utiliser pouvoir yi xoog yi ko dëkk bi euh, jox di ci xeex dëkk bi. moo tax man bi mu joxee ordre nañu évacuer salle bi man dans ma tête je me dis que def teg ko fenn c'est pas parce que il est le président de l'Assemblée rek day def lu ko neex ñun en toute solidarité tamit ñu ne du ñu génn ñoom ci public bi yëpp ne du ñu génn loolu lañ joxoon kon moo doon initial gendarme yi ñëw nañ wax nañ wax nañ gars yi ne génnuñu moom mu fi def appel à la GIGN bi GIGN yi ñëwee nag nga xam nañ ne degré de résistance su gars yi du benn yenn gars yi après nañ d'accord génn peut-être fex bi peut-être je man comme que dama ne dafa mënut tax mooy génn du ma génn fa laa toog une quinzaine de minutes après ñu woo waa GIGN ñëw mu nguufaan ma euh, pas menotté parce que foofu aussi il faut que nga nga leeral ko Sénégalais parce que ñu si bëri gis nañu image yi nga boot sa loxo ci ginnaaw ñu si bëri jàpp ni dañ la jàpp manoté la ba ñu si bëri sax danoo wax danoo arrêté kii di euh, Bayna Gueye daal di koy euh, daal di koy manoté kon manoté woon la woon. manoté wuñ ma ne signe de résistance la. pour wane ne que contre ak li may def ànduma si. Ah, waaw loolu en en en en étant activiste xanaa ñi nga xam ne dañ ko def suñu suñu suñ suñuy suñuy signes yi xam dañ koy jox dañ woon gars yi la pour wane ne euh, wan la population que li ñuy def nii c'est contre notre grain ànduñu si waaw dañuy jaay doole c'est l'oppresseur continue à oppresser. Mm-hmm. moo tax ma jël sama loxo bor sama ginnaaw waree ne je suis contre actes ñu nekk di di di manœuvrer contre contre ma personne. wala ñu def ñu yóbbu ma téye ma ci poste de police bi foofu assemblée. pendant une trentaine de minutes après woo brigade conk ñu yóbbu ma conk ba ay vingt trois heures passées. ñu gàddaa li ma ci mën a wax mooy day ça prouve que tout que ba léegi Pastef n'a pas les pleins pouvoirs. bi ñu la bi ñu la yóbbee euh, gendarmerie bu cong bu cong dañ la garde à vue foofu wax ak yow wala nu mu demee noonu. ah dama bëgg ñëw ci Amadou Mame Diop. am lu ma leeral ci moom porte benn message laa bëgg lancer les la population pour que ñu comprendre ñu xam ne carrément que. Euh, travail bi terminé guñ ko ñun ñoo prôné changement ñun ñoo prôné rupture changement systémique mais dañu xam ne def nañ benn pas mais matalaguñu liggéey bi. le travail reste entier parce que li koy prouver rek li dem li xew dem pour prouver na ko nee ba panteena Macky Sall di ndoxaral ay patriotes fii Sénégal nga xam ne kon liggéey bi des na et que incha allah on va les dégageant d'ici incha allah euh, si si avenir bu proche. Euh, ak euh, après gendarmerie bi tamit man damay lay wax ak ñoom quoi parce que. ils ont intérêt à refaire leur leur, euh, leur image. parce que kenn umpalewul tey jii nii dans un avenir très proche. on pardonne mais on n'oublie pas quoi. c'est eux qui tirent sur nos frères. 86 morts seen loxo dañu si ñëpp gis nañ ko te yéegi ma sont encore fraîches dans nos taxawaay ci bi mu amee à vis-à-vis de l'opposition gis nañ ko dañoo exécuté ay ordre yu illégal comme tey jii nag bu ñu ñëwee bëgg continuer loolu ñu doon def non il est temps qu'on les dit que la gendarmerie euh, se reprenne. Mhm. ñu xam ne lii ñuy def du dëgg du yoon. Mhm. parce que Bayna Gueye mosuñu ko jàpp mu def lu bon. Bayna Gueye du tox du naan du sàcc jël lu moomul mosuñu ma gis ma jaay ma xeer. déwle def lenn bi ñëwee di ma jàpp dama jël sama loxo bor ko sama sama ndig ginnaaw. kon war war ma benn signe de résistance bi nga xam ne war na tax ñu dañ ma ci defeere parce que dama ñëw gendarmerie ba ay 16 heures commandant brigade boobu noonu un certain monsieur Guèye defe naa. notifié ma sama garde à vue a demain tey tey tey heure bi dafa fekkoon war a fekk kaaf. ci lan heure fi doon d'obtempérer je lan yan yan yan notifié ma sax notifié ma doon nga da ma ciy defeere pendant ça ñoom ñoom les gendarmes ñi ngi def lu gën a garaaw parce que ñëpp xam nañ ne corruption bi ci mbedd bi ñan ñoo ko waral. bu bi am ci tali bi moom moo yenn moor yu bëri am accident yu bëri am ci tali bi. waaw kon ñoom foofu la ñu war a defar seen bopp ba pare xam ne le citoyen aussi dafa am benn cër bu ñu ko war a jox. mais mënuñu lu xuusement ñàpp ñu ñàkk fayda lu nekk nga jël ni keneen ko ci defee rek c'est abusé. léegi lan moo tax ay 23h ñu ñu ñu ñu libéré la. peut que après ils se sont ressaisis wala tam ñu jot beneen pression boo xam ne venant d'en haut je mais xam nañ ne lu ñu doon def noonu teguñu ko fenn parce que boo demee tax procureur la nga wax procureur procureur la nga koy wax la may topp parce que ñoom xam nga sax d'habitude buñ la jàppee garde à vue balaa ñu lay def dañ lay notifier sax sa diñ la motif bi hmm. mais notifier ma sax motif dañ ma ñëw ne ma notifier ne ma tu es en état de garde à vue woowal sa avocat point barre ma woo sama avocat waxoo ko mënu ma lan lay topp ma ne ko xamaguñ waxaguñ ma dara ma ne ma ok baax na su egsee tribunal je serai présent hmm. ñoom téy ma fa ba ay 23 heures passées sama journée bi yëpp ñu kapate ko li ma waroon def yëpp dem mujj ma ko def parce que lan Amadou Mame Diop benn ordre bu Amadou Mame Diop boo xam ne bu illégal bu Amadou Mame Diop joxe nga ci nga ci def yooyu noonu ils ont intérêt à à xam nañ tam dañ am un blason à à redorer la gendarmerie nationale sénégalaise alors euh, ci ordre Mame Diop boobu euh, dañuy des ba tey ndax ñu si bëri dañ naan ordre boobu euh, kii di Farba Ngom moom moo ko soufflé est-ce que loolu am na.

ñoom li ñuy seen manœuvre politique politicienne yooyu noonu incha allah li des bëreetul population bi nañ tenir prêt ñu xam ne dañuy ñëw dem ci ay échéances yu important yi nga xam ne moom mooy mën a prof euh, jox euh, le gouvernement bi fi nekk bi nga xam ne ñoom la ñu wóolu ba dénk leen ñu jox leen les plein pouvoir ba ñu mën jublu ci liggéeyal Sénégal. <laughs> exactement alors euh, léegi nu ñëw ci li nga xam ne nag moom mooy ni ñu rejeté projet de loi pour rek supprimer li nga xam ne nag moo di HCCT ak li nga xam ni moo di CSE. bi nu demee journée bi yëpp fan ko nekkoon presque ay 23 heures euh, nañu jàll ci li nga xam ne nag moo di ci euh, vote bi nu daal di rejeté euh, li nga xam ne nag moo di boobule projet de loi bi ngay dem assemblée nationale est-ce que yaakaar nga assemblée nationale dina adopté boobule projet de loi. waaw man bu ma jàppoon ne président Bassirou da leen doon may chance pour ñu wane preuve de de de de de maturité ak de de patriotisme envers leur peuple parce que un député pour le peuple man loolu laa gëm quoi. boo nekk député je suis un représentant du peuple pas pas d'un parti politique. ñëpp amul sénégalais booy laaj li ma la wax tout à l'heure CSE HCCT lan lay impacter ci le niveau de vie des sénégalais mu la ci tontu. gisuñu seen njëriñ et que c'est des xam ne budget bu bari moo fa am ñoom ñaar euh, boo leen link am na 15 milliards de budget annuel ñu koy jël di ko passer loolu xaj na xaj na feneen mën na mën a gérer les problèmes des sénégalais léegi kay ku ñëw na la dama bëgg. rationaliser dépense yi ñu suspendre kii nañu dissoudre kii eh, institution institution yi nii xaalis bi mu dem mu dem ci ci ci intérêt sénégalais mais en tan que député da nga ko war a da ko war a da ko war a support waroo ci xool benn calcul politico politicien boo ciy nekk boo ciy nekk mais malheureusement wane nañ seen vrai visage et que dañuy gën jox le euh, le peuple sénégalais raison que ne l'assemblée doit être dissoute alors est-ce que yaakaaroon aussi benn bokk yaakaar moo jël revanche am ci euh, kaw parti bi nga xam ne moo di Pastef. waaw c'est parce qu'ils n'ont rien compris le problème n'est pas entre Benno gis nga politique politique dafa doon loo xam ne boo koy def war amoo ay adversaire politique tu la fais pour jëriñ sa askan. bépp acte booy posé loolu moo war a nekk soubassement bi mais waroo ko def parce que damay contre une telle formation politique wala une telle autre loolu ça doit être ça doit ça doit être dépassé et révolu bépp acte bu politicien di ko dafa war a teg parce que bu ko tegee dafay impact de façon positive à sa population. ñoom li ñu li ñu def nii ñëpp xam nañ ne sénégalais amu ci intérêt. mais peut être def parce que ñu ci jublu pour mettre le bâton dans les roues au parce que le peuple a déjà compris te que c'était le plus important comme que askan bi comprendre nañ te fi ñu jëm te tamit ñi fi nekk xam nañ xam nañ seen seen seen seen seen capacité il pour déjouer leur petit leur croc à jambe déjouer ko ba mettre quelque chose bi nga xam ne sénégalais dañ ci gis seen bopp te bientôt incha allah. Mm-hmm. très bien alors euh, ci euh, loolee ba tey nu gis ni carrément ki nga xam ne euh, moom moo jiite groupe parlementaire bu benn bokk yaakaar di Abdou Mbow dina xamal ni naka tey jii dina déposer ab motion de censure pour daaneel li nga xam ne nag moo di gouvernement kii di premier mi Ousmane Sonko alors nga xam ne moom député bi fas yéene na ko déposé nag tey jii nan nga ko mën jàngatee aussi. ak Mbow pour pour pour dire vrai il n'est pas sérieux quoi même en l'entendant parler da xam ne kii n'est pas sérieux pas un gars xam ne la population sénégalaise ñu koy prêter attention. parce que boo xoolee dem parce que man tey suba laa doon seetaanaat affaire yi quoi mais nga xool ko rek da nga xam ne ce gars il n'est wax maîtriser wu si dara ak ci muy posé ses actes yi nga xam ne mooy loolu kenn du ko gis du ko nawloo mais sa à l'image de leur formation politique aussi. parce que boo gisee député benn bokk yaakaar yi ni ñu nekkee assemblée ni ñuy toogee assemblée parce que démb bu ma ñëwee assemblée loolu mu njëkk metti dama ñëw gis atmosphère bi ma xam ne lii réunion de famille sax moo ëpp sérieux li atmosphère buy prévaloir assemblée nationale de façon décontractée mel ni que ñoom travail bi y a rien de sérieux de ce qu'ils font nii xaaxataay tàppante affaire yooyu noonu tu as mal au cœur nga ne mais ñii chaque weer bu dee ñu ngi fari ci naq baadoo lay ñu war a représenté loi yi ñuy voté day dix quinze voire vingt cinquante ba cent ans les populations sénégalaises yow nga xam ne loolu ak série bi mu nekk il ne mesure même pas de leur responsabilité tey bu ñu amee ku mel ne Abdou Mbow mu leen di jiite da nga xam ne c'est à leur image te Abdou Mbow bu waxee sénégalais dégg nañ ko xam ne carrément li muy wax man gaw ma ne li muy wax lu mu gëm la sax moom parce que yooyu muy wax c'est des menaces yu mu xam nañ objectif yi lan la xam nañ ni ñu fa mën a yóbbu te nous avons les capacités d'y arriver incha allah. mais aussi est-ce que euh, xawu leen am benn tiitaange ci boobule euh, motion de censure parce que xam nañ actuellement ñoom ñoo am majorité foofu la ci biir assemblée nationale buñ ko dëggal dugalee buñ ko voté cela veut dire que ni gouvernement bi dafay daanu. Ah, xam nga da tiit koo xam ne moom bi muy am pouvoir mosoo ko tiit comme du tey lañ ma la du ma du ma la wax patriote yi du ma la wax ce que nous avons ba egsi fii ñu egsi tey ñoom yor nguur yor doole faalewuñu leen ragaluñu leen tiituñu leen comme du tey lañ leen tiit Abdou Mbow seen menaces yi ñuy la sa sa frégé wuñu ñeente quoi. daxee def na ko def li mu moom li li mu mën def moom na ko def mais l'essentiel ñun fi ñu bëgg jëm kii euh, qui soutenir les Sénégalais. Dañ fay yegg inchallah rabbi. Le projet va réussir, le président Ousmane Sonko l'a si bien dit, nous l'avons compris, le peuple sénégalais l'a compris et dañ ciy dem Abdou Mbow euh, bruit de couloir là. Uh-huh. Waaw, il nous empêche pas d'aller de l'avant inchallah. alors livre bi nga xam ni euh, kii di euh, Cheikh Bara Dolly euh, bind na ko duppeeku li nga xam ne nag moo di livre rouge ginnaaw waa benn bokk yaakaar bindee livre blanc pour rek wane réalisation yi nga xam ne Macky Sall def na ko fi pendant 12 ans moom l'honorable député ñëw génnee li nga xam ne nag mooy livre rouge di wax rek ñaawteef yi nga xam ni amoon na fi pendant 12 ans nit ñu ñàkk seen bakkan arestation yi ak yeneen ak yeneen député boobu aussi def maanaam livre bi nga xam ne bind na ko nan nga ko mën jàngatee tamit. non mais ñaawteefu Macky Sall yi mu def pendant ces douze ans là xajul si livre xajul sax si dictionnaire c'est que Macky Sall a fait à la population sénégalaise xajul ci livre xajul ci dictionnaire Macky Sall ba lim ay ñaawteefam doo fi jóg. Macky Sall bi bi ko sénégalais yi falee la la la la leen war la nekk di déroulé une benn programme boo xam ne benn sénégalais mënu ci gis boppam ba ci li ñuy ko sax mu les institutions di def nii qu'est-ce que ça nous a bi muy fekk dette publique bi mu ko ci quinze mille mënoon ne da ko doublé mënoon ne da ko triplé da ko triplé xam nga kooku il ne travaille pas pour pour pour le peuple sénégalais. multinationaux yi la fi nekkaloon ak étranger yi boo ñëwee son bilan immatériel moom da ngay loxo day dat gémmin combien de morts li nga xam ne Sénégal mosu ko dund mosuñu ko gis ci secteur boo laal tey jii sont corrompus jusqu'aux os kon ñun Macky Sall bu toogee di ko wax peut na ko jaay ñeneen mais pas la pas la population sénégalaise ay livre blanc ak affaire yooyu noonu yooyu pour man. Euh, sénégalais yi nekk nañ ci yeneen priorité que ça mais mais mais aussi taxawaay bi nga xam ni moom Bara Dolly am na ko nu gis ni au début xëy na digganteem ak ki nga xam ne nag moo di parti bi di Pastef neexul woon noonu nu dem ba si biir nuy wax dissolution wu assemblée nationale nu gis ni kat carrément dafa mel ni ku changé euh, li nga xam ne nag moo doxalin ñu si bëri jàpp ni dafay waaj a transhumé wala rek dafa bëgg euh, dafa am yaakaar ni xëy na bu demee ci législatif yi euh, dina am doole ci li nga xam ne nag moo di parti bi di Pastef pour rek mu mën nekkaat député est am na parti c'est un chef de parti il a le droit de construire sa sa dem ci élection yi mais Pastef li Ousmane wax dégg ko keroog képp ku bëgg ñëw Pastef mais tu pars la base nga milité et que xam ne ñi fi nekkoon ba dara dul dara ñi ko gëmoon di ko xeex affaire yooyu noonu parce que am nga tur rek boo ñëwee on va on devant des autres loolu yanwul maanaa sax parce que kenn umpalewul Pastef nous avons beaucoup enduré daj nañ ci lu ci lu nekk ba di jël keneen di ko muy muy nekk à la place des des des patriotes loolu bon sens sax da da koy da koy tere. baara dool yi moom. seen chef de parti te gëm na ne moom dafa bëggoon nekk président de la république. Mm-hmm. kon il a les yi ko mën a reconduire mu dem assemblée. waaye mm-hmm. ah, c'est je crois. très important. alors euh, ba tey ci wàllum benn bokk yaakaar démb vers 22h 23h gis nañu benn communiqué euh, bu génn euh, nu ñuy xamal ne rek kii di Macky Sall moo ko signé pour rek nu dissoudre li nga xam ne nag moo di coalition benn bokk yaakaar parce que réalité politique bi dëppoowatul ak li nga xam ne nag mooy ni coalition bi di doxe alors nan nga mën jàngatee aussi la dissolution di coalition benn bokk yaakaar. benn c'est des joies anciennes Benno avec ce qu'ils ont fait au Sénégalais ñoom mënutuñu am dara fii Sénégal peut-être que il a fait sa prise de conscience mu comprendre loolu mais du dissolution bi moo leen di mën a jox benn benn virginité dissolution ou pas xam nañ leen xam nañ leen ñoo leen ñoo ko composé woon ak ci ñu fi def c'est encore fraîche et tamit justice justice va être faite allah que nga nekk Benno que nga nekk benn nga nekk beneen parti yaa xam anyway mais képp ki nga xam ne li fi jot a xew ci ay luubal ci ay rey ay scandale yow yoon yoon yoon yoon yoon dina def liggéeyam bennoo tas na bennoo tasul suñu yoon nekk ça nous importe pas mais xam nañ ñoom sax de l'histoire ancienne et que dafa nag benn page bu ñuy tourner mais yoon dina def liggéeyam par rapport aux personnes yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon doon def lu leen neex waaw. nu annoncé nu dissolution wu lii di benn bokk yaakaar nu gis aussi ca wet ga Amadou Ba mi ngi wàcc euh, monté li nga xam nag moo di parti am naka la neuf bi est-ce bokk yaakaar. sa Amadou Ba man sa wala il n'est pas sérieux quoi parce que tu peux pas tu peux même pas le saisir wala le comprendre parce que euh, ñaar élection yi c'était quand au mois de mars. mën nañu continuer te ba benn bu yoonu yokkute la doon ba je sais après après élection yi moom mu ne ma Macky Sall ñooy dañuy xiroo nga c'est il ne respecte te il prend les Sénégalais pour les démettre te Sénégalais yi leen gën a muus a li xew Amadou Ba ak Macky Sall seen jënd yooyu boobu la ñoom la quoi ñun ça nous importe peu et que Amadou Ba moom moom bu fekkee ne yaakaar na ne mën na naxaat sénégalais yi ba lim fi parce que Amadou Ba musul opposé wu. te xam naa ne tey lay commencé opposé wu peut être que bëgg na dugg ci liste yi assemblée nationale am couverture bu parce que il doit rendre compte il doit parce que li fi géré ñëpp gis nañ lan la fi ay budget dul deex te gis nañ moom tey ji ci li mu toog ñëpp xam nañ Amadou c'est un milliardaire fonctionnaire milliardaire et loolu da ko war a expliquer sénégalais mu leer si bopp ñëpp fan la def nan léegi politiquement c'est son droit le plus absolu mu ne day créer parti wala affaire yooyu noonu mais mënul nax sénégalais quoi mënul bëlde sénégalais te ñoom mënuñu fi am benn beneen virginité pour mën a mettre être au devant de la scène ba ne dañuy jéem a euh, opposé wu par rapport ak euh, Pastef bi fi nekk. exactement alors euh, Bayna dernier euh, point bi ma la laaj mënuma ñëw fii te te du ma la laaj aussi 72 euh, heures yi nga xam ni kii di Barthélémy Diaz jël na ko fas yéene fësal bilanam depuis bi mu nekkee maire maire de la ville de de Dakar cinq ans yooyu ban bilan wala at yi nga xam ne moom la fi Barthélémy Diaz nekk muy trois ans bu ma juumalee ban bilan nga ko mën a tiireel. waaw man Barthélémy Diaz su ma koy tiireel bilan du ma tiireel bilan ci. ci ci ci dina deux ans et demi quoi mi parcours ma ko tiré bilan ci loolu dama tout son parcours politique man Barthélémy Dias su ma ko doon tiré bilan te loolu xam naa ne peut-être que du xaj ci interview bu gàtt bi mais bés bu en politique man la wax. mais mais mën nga si ñamatu ci à l'avance. léegi bilan man lan surfacturation bi. parce que surfacturation waaw. Barthélémy Dias ak euh, lépp lu muy defar bu doon jar cent franc bu ko defaree naa ne mille la ko defaree na bàyyi surfacturation ko. mu doon benn mauvaise habitude ci politicien ci politicien yi du moom kese mais moom da ci raw parce que maa ngi gis am na benn école bu nekk fii à Liberté David Diop mu ne da koy da koy da koy réformer réformer école 760 millions xam nga il ne respecte pas les Sénégalais réformer waxuma la tabax école bees de réformer te ta yesalaat à 760 te ñi ngi tabax école à moins moins de loolu euh, am na école bu ñu tabax kooki million millions lañ tabaxee école bi école wax nañ ko tax bu bees avec toutes les commodités nécessaires yow ngay defoon ma nga dañ ciy def 760 millions. qu'il arrête ses subterfuges mu xam ne moom mënutul am tam visibilité politique Barthélémy Dias politiquement il est mort. il est mort politiquement mënutul wax ba ba sénégalais gëmaat ko wala ba sénégalais ki yoon ko na doon na doon nax sénégalais man bokk naa ci ñëkk ñëkk parce que yàlla dafa def ma xam ko ñu bokk ko juddundoo mu mag ma nekk sama sama morom oncle yi fii mais ma judd gis ko mu muy def muy def politique ma xool xam ne muy defee ne kii baaxul ay ay boppam ma ko ñor ma yàgg ko dénoncé mais les sénégalais comprendre duñu woon mais li yàlla def rek tôt ou tard euh, la vérité finira par triompher léegi nag sénégalais yi découvrir nañ ko xam nañ kii et bu fekkee ne son semblant de bilan en mi parcours boobu dañ jàpp ne moo ko a virginité politique il se fout le dans les day il se trompe lourdement Barthélémy Dias c'est de l'histoire ancienne politiquement il ne répond plus rien au Sénégal parce que xam nañ ne du liggéeykat benn bëriwul xam-xam réew na arrogant na mën na mën na manipuler mën na war mën na war parce que ci cadre war moo tax man nekk un jeune de Pastef boo xam ne koñ mun ne dama bëgg taal këram weesu loolu à 19h ma toog fii nii fii laa taxaw si jardin ak samay copains mu ne dañ bëgg taal këram war mënul weesu loolu kon bu fekkee ne ay bilan à muy parcours ville de Dakar te ville mu fa nekkee surfacturation surfacturation dafa nekkee def la njëkk def dem jënd ay moto affaire yooyu noonu te yooyu yëpp lâché à des prix très xam nañ affaire société écran yi muy créé ñun xam nañ lu bëri xam nañ lu bëri ñu muy ñu muy joobee le moment venu moom nañ def bilan à mi-parcours nañ ko defal bilan durant tout ça tout son parcours politique. mais mais mais au-delà euh, parcours politique boobu deux ans et demi yu mu def fële ci mairie bi Ndakaaru est-ce que gis nga benn changement bu am solo euh, fii ci biir Ndakaaru. waaw ah, question parce que man moom wax dëgg fa neex yàlla gis ma lu mu fi def lu mu changé ñun baab lañ dëkk ñu ñun fii nii te gis ma dara lu mu fi def ci ci SICAP bi waxtu ma laa Dakar. bu tey tamit yow da nga ci gis bilan bu mu def boo xam ne yow mën nga koo saluer. mais aussi pavage yi nga xam ne mi ngi ko doon def loolu aussi nekk na nekk na mbir yu am solo. pavage yi pavage yi euh, fii bi ñu koy fi ñu fiy njëkk pavage yenn secteur yi c'était Promoville euh, kii wu état la woon mais dama da ngeen war a xam tane aussi budget ville de Dakar soixante milliards la amul benn euh, nu mu tudd ministère bu am budget bu toll noonu kon munoo yor soixante milliards pour Dakar tout court te nga ne doo def dara. mais dama ne li ngay def li nga war a defee cent franc dem defee ko dix mille loolu la ñuy dénoncé parce que loolu c'est du vol sàcc na da ngay enrichir ay nit pour en retour ñoom ñu ñëw jàppale la ci leneen amaana sax dafa yaay yaay créé ay ay say say société bopp def ko ay prêt non xam nañ ñu mu demee quoi ñun bari na mu jaar bu ñu doon wax ci moom mën nañ bind ci moom livre fekk moom xam na loolu noonu. effectivement yaakaar nga collaboration am euh, moom ak nguur gi. kan Barthélémy Dias <laughs> Barthélémy Dias ban nguur lay collaborer. ah mais parce que mënul nekk euh, le maire de la ville de Dakar te mënul collaborer ak euh, le régime en place. Ah, de travail non pour man euh, mairie état décentralisé la quoi mairie moom mm, état central bi mënuñ fu ñu mënul egg mooy ci collectivités territoriales yi maire moo fay moo fay nekk di fa représenté état loolu mooy maire mais xam nga booy liggéey da ngay liggéey ku dal sa xel. Uh-huh. loolu c'est très important en termes de relation foog ngeen état bi benn. climat de sérénité de confiance. mu mu mu mu mu mu réciproque ngeen wóolawante pour ngeen mën a liggéey mais ñëpp xam nañ ne li li jot li jot a dox diggante le pouvoir actuel ak Barthélémy Dias ñëpp gis nañ ko. c'est très c'est très proche bi muy toog ci plateau yi di taxé gars yi de tous les noms d'oiseaux lu ne mu yàq ko dañuy yéene leen lu nekk comme tey kooku bien vrai que li nga war a li la war moom mooy euh, sol euh, kii imp euh, pas kii kii di di récupérer war ko war ko injecté ci mais ci commune yeeg affaire yooyu noonu gars ko def en gentleman mais pour am ak moom liggéey ak moom ci loo xam ne mooy loolu moom je crois je crois moom na def li mu ko war a def cinq mi jeex mu mu pousse abal ñu incha waaw jërëjëf trop di la jaajëfal lu baax a baax si leeral yi nga xam ni euh, apporteel nga nu ko démb fële ci assemblée nationale ndax dañoo xëy rek gis ni carrément euh, bay naa teg nañ ko loxo te xamuñu woon mbir mu nu mu demee macha allah di la jaajëfal lu baax a baax ci euh, disponibilité bi waaye aussi di la sant di la gërëm ci temps bi nga xam ni accordel nga nu ko pour mën a permettre mbokku Ethno 313 digital lan rek moo taxoon naat lay teg loxo jaajëfal na la. waaw ñu ngi am na liggéey bu ñu tàmbale te dañ ko war a yeggali te du yàgg dara incha allah dinañ ci ay échéances yoo xam ne dañu war a jox Pastef majorité ba liggéey bi ñu tàmbale incha allah war ñu mën ko yeggali jaajëf Bayna ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jaajëfal mbokku internet yu doon bàyyi xel depuis ban door rek léegi ay dara mi nekkoon ci caméra bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ci kanam tuuti ak yeneen xibaar.